yonent bi ku baax la te ku honnête la parce que li mu li mu wax ni dingeen dem ba kàddu tax nature bi gedd leen di dem ci wax ba nature bi gedd leen nee na nature bi ni mu leen di gédde mooy dafay bañ dootul coopérer ak yéen te bu coopéreetul ak yéen lu nekk la mu daan saf dootu ko saf mooy su fekkee bëgg bëggkatu xaal nga boo dee lekk xaal dangaa defe ni jombos ngaa lekk parce que dootul saf xaal boo dee lekk pomme de terre da ngay defee ni du pomme de terre ba nga xamoon boo gisee mu commencé rek c'est que bi commencé na di bañ nature bi moo commencé di bañ te yonent bi nee na du deñ lu dul bi Isa ibnu Maryam di wàcc ndax yàlla boo gisee mu décidé ñëw Isa ibnu Maryam instant dafa am relation ak univers bi univers bi dem ba commencé yàqu univers bi dem ba commencé yàqu complètement kenn mënatul xàmme garab gu neex kenn mënatul xàmme garab gu weex fruit yu bare commencé manqué yàlla yëg ni univers bi defu ko dara ndax univers bi lan la ca nekk yëpp ci zikr chaque jour ma nga ci garab yi liñ doon tudd baatu yàlla bis bu xëy wàññiwuñ ca dara ñu ngi continuer di ko tudd yàlla ci honnêteté ci justesse mu ni dana leen delloo njukkal balaa àdduna di tukki pour mu delloo leen njukkal faw mu jëli Isaa ja xaybu indiwaat ko mu dundalaat univers bi boo gisee texte bi mu def ci wàccu Isa nu Mariam ci ngay xam ni yonent bi moo honnête parce que boo ko jàngee li ngay jëkk yéene mooy fekke ko ndax ni mu waxe escorte bi ak bu góor gi dee wàcc ñaq bi génne ci jéem di toq ci nature bi mooy dundalaat nature ba mu accepter pour coopérer avec la race humaine yonent bee bu ko defee yépp normala waaye yàlla indi Isa ibnu Maryam wàcce ko yonent bi expliqué ko ni buy buy wàcc ñépp gis melokaan wàcce ba mu rafete lumière bi muy dégagé ñi boo ko xoolee xam ni pas-pas a tax muy wàcc xam ne détermination la waaye xam ne yàqam ci exécuter ay ordre moo tax mu wàcc moo indi muy ñàkk waaye seetal yàlla yi mu ngi ñàkk ba sëkk secret li mu salaatul fatiha bi war war ci suuf pour mën dundalaat suuf si yàlla lu mu def am na lu tax

c'est la fin de tout mara day tali te le début de l'apocalypse lu tax mu day war dafa nekk en relation avec la descente de Isa ibnu Mariam la descente de Isa ibnu Mariam dañu am rapport Isa bu doxee mission ba jóge fi c'est le début de l'apocalypse ndax lu yàlla defoon mu lewat loolu day weex lu yàlla defoon mu dal loolu day yëngu lu yàlla defoon mu nekk loolu day naqari ndax mission jeex na moo tax ñu bare ni Insa bu ñëwee dafay nekkaat incarné Insa du nekk incarnation kenn ñi koy wax ñëpp xamuñu Insa ñi wax ñëpp bu Insa ñëwee dafay nekk benn nit xamuñu Insa instant bu ñëwee nam mu fi jógee woon na mu meloon mu dellu seen noonu lay mel mottali mission dem yoonam ñi fi combattre ñëpp ku ko ca xool bu dund la moom ci jamono ni même personne changement amu ci incarnation